بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa السلام ورحمة الله وبركاته jëkk leen nuyu waa daara ji te ci jiital sëñ Mouhamadul Amin di leen ndokkeel ci guddi gi ak nii ñu koy dundale xam naa waxtaan wi dañ koy tënk dañu ne woon dañu waxtaane njaboot xëy na li tax ñu tànn koy bokk na ci lu bari lu ñuy jàmbat man hmm. naa am fa mu jógee mooy ca njaboot ga lu bari lu ñuy jàmbat ci penc bi mën naa am fa mu jógee mooy ca kër ga la jóge kon bu nu waxtaanee kër gi ak njaboot gi luñ ca jara jubbanti buñ ko jubbantee rek li ñuy jàmbat ci penc bi nit bari naa rek te li ñuy tuddee ak njaboot mooy famille dañ naan mooy mooy jiwu société walla mooy brique bi njëkk ci société société bi ay famille yu dajaloo la kon lu nekk ci société bi rek ci famille la jóge lu ñu defar ci famille yi rek mu defaru ci société yi loolu moo tax xëy na ñoom ñu tànn waxtaan woowu ne dañ ko waxtaane tey bu ko defee nag danañ waxtaan kon lu aju ci euh, bu ñuy taxawal famille yan yenn fondement lañ ko a taxawale bu famille bi taxawee itam ñi ko set kenn ku ne lu ko war ca moroom ja ku ne la ko war ca moroom ja bu ko defee rek jàmm mooy am lu ñuy jàmbat du am solo yàlla famille muy njaboot mi ngi tàmbalee ci ñaar muy góor ak jigéen liñ naan ñaar ñuy dencante ci lay tàmbalee ñaar ñooy dencante yàlla man caa man caa feeñal itam lu ñuy tuddee doom mu gën a yaatu waaye kon mi ngi tàmbalee ca ñaar ña ñaar ña nag la nga xam ne fa lañ ko waral lal muy fondement ak base yañ ko war a teg bokk na ci ñaar ñooñee ku ci nekk tànn moroom ji tànn kon ci tànn la war a tàmbulee góor góor gi dafa war a tànn jigéen ji mu bëgg àndal taxawal famille jigéen ji itam dafa war a tànn góor gi mu bëgg a àndal taxawal famille kon ku nekk dafa war a tànn moroom bi tànn ko te tànn ko itam tànn niin wu rafet tànn wu rafet nag bu dee ab jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko koy xamal moo koy xamal nan lay tànne tànne nu rafet te xamal na xamal nanu ko xamal na ko góor ñi xamal na ko jigéen ñi xamal na góor nan lay tànne soxnaam tànnin wu rafet xamal na kilifa yi maye seen njaboot itam nan la ñuy tànnale seenam njaboot borom kër ci tànnin wu rafet bu dee góor yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne góor ñi day danañ danañ denc ci soxna ngir ñeent mooy ñeenti ngir dana tax ñuy denc ci soxna ka ñuy denc ci soxna danañ ci xool benn ci ñeenti mbir am na ñuy xool askan am ñuy xool alal am ñuy xool ab taar am ñuy xool diine ak jikko wala ñeent yooyu yépp am na waaye daal ne yow nag li ma lay digal yow jullit bi mooy yow ci ngay tànn nanga ci xool diine ak jikko bu ca leneen àndee mu baax waaye bul jiital leneen na nga jiital diine ja ak jikko ja yi ci des nag lu ko def fekk itam day baax waaye nag bul jiital lenn ci ñett yooyu rek loolu la wax góor gi bëgg soxna kon non la war a tànne tànnin rafet kilifa yi am njabot yu toll ci war a dem kërit mu ne leen bu fekkee góor ñëw na ñëw na fii yéen bëgg seen ngeen ko mu am diineeg jikko ju rafet na ngeen ko may ndax nee na bu ngeen ko deful ak yàq rek lay jur ak yàq lay jur ci société bi bu ay bu góor ñu am diine ak jikko ju rafet dikkee te muy leen leen xanaa di bëgg leneen bu boobaa ak yàq rek lay jur ci société bi kon gis nga lim cim tànn loo góor mooy ko am diine ak jikko ju rafet waaye cim tànn loo jigéen itam mooy ki am diine ak jikko ju li tax mooy diine ak jikko ji rafet mooy tax ba nit ki man jàpp ci sëy bi nam ci war a jàppee lépp lum laaj lu koy dëgëral mu di ko def lépp lu koy mën yàq mbaam mu koy woyefal mu di ko moytu diine ji ak jikko ji rafet ji moo koy moo koy puus ci loola waaye bu ñu xooloon leneen rek lu bokkut ak loolu ci yeneen yi mu tuddoon lu mel ni alal bu fekkee moo dugal nit ci sëy loola mën na koo yàqaat sax te it luy mën a dañ la alal mën naa tàggug nit koo xam ne alal la ko boole woon ak nit moo xam góor gi alal la ko boole woon ak jigéen wala jigéen ji alal la ko boole woon ak góor alal jëm mën naa dem ba du fa nekkati boobaa kon sëy ba du mën bu ma la neexal ab taar noonu man naa bañ sax mm-hmm. te alal ak taar ak askan ku koy dabu ci sëy te dabu ci diine ak jikko ju rafet ka dabu ca moom loola loola mën naa tax sax mu yëg boppam mm-hmm. ci xam ne alal rek moo tax kii jublu ko mën naa tax mu yëg ci boppam ñu xam ne ab taal a tax noona ñu xam ne aw askan rek a tax itam mm-hmm. noona bu fekkee àndut ak jikko ju rafet ak diine mm-hmm. lu ci ànd ak jikko ju rafet ak diine nag moom day gën a baax rek ndax jikko ji ak diine ji mooy tax ba loola du yàq waaye day defar kon tànn rafetal aw tànnin mooy fondement bi njëkk bi ñu war a tabaxee ñu war tabaxee ab ànd ab sëy la ca war toppaat mooy ñaar ñi ko sëq muy góor jigéen ji kenn ku ne ànd ci ànd gu mat sëkk sëy bi ñaar ñi ko sëq kenn ku ne ànd ci ànd gu mat sëkk waaye kenn du ci dugg rek ngir kilifteef wala daal leneen loo xam ne du ànd gu mat sëkk kon mooy ñi yilif am nañ taxawaay bu ñu war a taxaw ci sëyub seen njaboot waaye nag waruñ ñoo dugal seen njaboot ci sëy boo xam ne njaboot ga ànduñ ci waaye dañ leen caa dugale ci kilifteef rek wala sax ñu dugal leen ci ngir seen njariñul bopp ñoom ndax loolu lépp danay am nit dana dugal njabootam ci sëy te fekk njariñam la ci xol moom xoolu ci njariñu njaboot bi muy dugal ci sëy wala mu dugal ko ci sëy ngir rek wane baatam ak kilifteefam wane na lu bëgg mooy am rek te bëgg na lii yooyu yëpp itam lu jara moytu la cib sëy war nañ leen taxawu nag taxawu gi mooy ki am njaboot mu toll ci sëy bu dee jigéen mbaa mu toll ci dañ ci soxna bu dee góor kilifa gi sañ na koo tànnal waaye bu gis bu ko gisalee kum jàpp ne baax na ci moom man na ko ko proposé mm-hmm. bu ko proposé wan ko la tax mu proposé ko dam ca gis mm-hmm. ba jàpp ne bu sëyeeg moom dana doon lu gën dana doon lu baax fexe ba mu nangul ko boppam bu ko nangulee boppam nag mu doo ko caa dugal waaye waru ko ko waru ko caa dugal rek ci ci kilifteefu boppam jàpp ne moom baax na rek njaboot gi lu man di xalaat mu bañ koo déglu ne ko may sa kilifa li ma bëgg rek mooy hmm. amee sëy bi man naa bañ a neex hmm. te ab sëy ku ciy dugal njabootam xanaa da koo caa war a dugal ngir bëgg mu doon sëy bu sax doon sëy bu neex hmm. waaye di ko ci dugal kenn te na ko ci dugale rek tax du mën a doon bu sax du mën doon bu neex loolu war moytu du jar moytu la ki nga xam ne dañ ko dugal jib sëy ngir kilifteef rek benn mu doon ku yaru bu yaroo nu muy def mooy nangu ko waaye nag nekk ci naqar ak tiis mm-hmm. te loolu tam kenn war caa dugal njabootam mm-hmm. sëy boo xam ne ba mu cay dugg rek naqar ak tiis la ca duggee mm-hmm. Euh, waaye ab yaram moo tax mu nangu ko loola kenn war caa dugal njabootam te it nag lu mu yaru yaru yaru it lenn li mënta sax bu ko nangoo ci njëlbeen gi it mën naa am bu yàggee bu ko mën a attanit te kon sëy ba day jeex rek te ab sëy lañ ca bëgg mooy mu sax bu fekkee nag doom ji ab yaram walla àggul fenn fi moom day lànk day lànk bu lànkee mu doon xëccoo seen diggante am na ñu yàgg ci ak dogoo sax te loolu lépp dara jaaru ci ku am njaboot wërta dogoo ak moom hmm. da ko war a taxawu ba dugal ko lu ko dugal ko ci lu ko amal njariñ tamu nangu ko tamu nangu kon war na ñoo taxaw njaboot gi bu ñu waree denc soxna wala ñu war leen a denc waaye nag taxawu gi firiwul ñu dugal leen ci loo xam ne bëggaluñ ko seen bopp hmm. buñ leen bëggee dugal ci dara nañ fexe bañ bëggal ko seen bopp buñ bëggoon a dugal seen bopp ci dara luñ jàpp ne baaxut it nañ fexe bañ xamal seen bopp ne baaxul bañ génn bañ bañ génnal ci seen bopp hmm. waaye itam sa njaboot bëgg nga ne ko ànduma ci te ñàkk ànd ka tegewut ci lu leer ak lu ko jar hmm. loola itam du taxawu njaboot taxawu njaboot mooy bu naree dugg ci lu koy lor nga xamal ko ko ba gisal boppam lor ji ba bàyyil boppam boo gisee lu koy jariñ itam nga xamal ko ko ba mu gisal boppam njariñ la ba duggal ci boppam nangul ko boppam kon ñaar yooyu ñooy fondement yi nga xam ne ñoo war a ñoo war a ci lañuy war tabax ab sëy muy kenn ku ne tànn moroom ja te tan tànn ga ñaareel ba kenn ku nekk itam ànd ci ànd goo xam ne bu ma sëkk lay doon yonente bi loolu la wax jigéen dañ koy maye waaye nee na kuy maye jigéen na ca ànd moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam ku mas a dem kër la moo xam ku mas a dem kër la am soxna Aysa moo ñu ko nettali mu ne am na benn xale bu jigéen bu baayam masa maye mu ñëw ci yonent bi ne ko man daal sama baay maye na ma te li tax mu maye ma boppam rek la ca xool mooy daal day daa bëgga a ki ma may da ko bëgg a yëkkatikoo moom mm-hmm. moom sama baay waaye xool sama njëriñ yonent bi ne ko yaway tànn bu la neexee mu wëy bu la neexee du wëy mu ne nag ginnaaw wan nga ne man a may tànn léegi nangu naa dama bëggoon rek way jur yi xam ne seen sëyub doom du jaageeru ci seen loxo na nekk fu leen neex ñu leen fa fu leen génn leen mm-hmm. waaye nag ginnaaw xamal nga ne ma xamal nga ma ne bu ma neexee mu wëy bu ma neexee du wëy ànd naa ci mu wëy loolu am njàngale la ba nga xam ne jigéen ku koy maye da koy maye ci coobareem kon taxaw gi jaadu na waaye nag taxawu taxawu ak dugal ko ci lum àndul wala génne ko ci lum bëgg te leeraloo ko ko ba mu xamal ko boppam loola bokkut ak taxaw waaye leneen la sàkkantuma rek di ko dugal ci loo xam ne euh, sa njëriñul bopp nga ci xool waaye xooloo ci njëriñam foog naa dinañu am léeg-léeg rawatina ci jigéen ñi rawatina soxna yi ku ci am doom yu jigéen bëgg koo dugal fenn foo xam ne moom yaay ji lam cay xool rek mooy lu mu ciy amee ëllëg moom moo xam alal la moo xam sax euh, situation la mooy mooy da leneen loo xam ne ab ab judd loolay mel noonu wala situation daal bu xale bi waxee mu ne ko da ma wut xanaa nangam waaw ñu mel noonu euh, yooyu bokkut ak dëgg-dëgg taxaw taxaw njaboot waaye njaboot yi itam moo xam góor ñi ne moo xam jigéen ñi lañ ñi ci toll ci sëy nañuy déglu seeni waajur dëgg la luñ ànd lañ leen war a dugal waaye nañ xam ne itam seeni wayjur nag ñoo leen war a taxaw te xam nañ luñ xamut seeni wayjur danañ xam luñ xamut ñoom ci sëy ba mën nañu bëgg loo xam ne dañoo gis kaw gi rek am na lu ne ci biir loolu ñoom mën nañ koo bañ a xam te seeni wayjur xamut kon li gën mooy njaboot gi nañuy déglu seeni wayjur di leen déggal waaye yi itam nag dañuy xool jariñul seeni njaboot ci ci liñ leen di dugal wolof da daan wax ne gone dana yéeg mag tëdd gone yéeg ci kaw garab mag tëdd ci suuf di séen lu gone gi seenut loolu waxin la la ko may loolu rek mooy ay jaar-jaar ndax gone gi lim ma lii nga xam ne àggagu ca mag ñu jaar na ca moom ba mm-hmm. tax na mën na jaaxam loo xam ne ak see gudd waaye dana ko mën a séentu mm-hmm. xale bi nag du moom li rek lay mën a xam mm-hmm. moo tax kon ndaw ñi war di déglu seeni kilifa ci lu mel nii waaye kilifa itam nag di dugal seenum njaboot ci lu leen di amal njariñ te bañ leen dugal loo xam ne seen njariñu bopp lañ ci xool ñoom euh, lu mel noonu mooy kon fondement bi ñu teg ab sëy bu amee ba noppi nag ñaar ñi ko séq kenn ku ne am na lu ko war ca moroom am na lu leen war ñoom ñaar ñëpp nag nga xam ne ñoo ñoo ca bokk ñoo ko bokk ñoo ko ñoo ca bokk yem li leen war ñoom ñaar ñëpp la ca jiitu mooy ñu xam ne ab sëy diggante góor ak jigéen la yàllaa ko santaane waaye it yàlla moo bind góor gi bind jigéen ji sëy bi itam am lu leen ca war waaye la leen ca war it yàlla moo ko séddale moom mi leen bind moo xam kenn ku ci ne lam gën a man mu féetale ko ko yàlla moo bind góor gi xam lim gën a man ngir di jigéen ji xam lim gën a man ku nekk mu féetale ko ci biir sëy bi lam gën a man kon la war a jiitu mooy kenn ku ne la ko yàlla féetale mu doyloo ko mooy mu nangu ko te doyloo ko góor gi xam ko mu nangu loola doyloo ko xam ne ki ko féetale moo ko gën a xam moo ko bind moo xam lu man ak lu gën a man ak lu mënut jigéen ji itam noonu xam na yàlla mi ko féetalee ci sëy bi moo mi ko féetalee nangam ci sëy bi xam na ne loola moo dëppoo ak ni ko bindee moom kon kenn ku ne xam la ko yàlla féetale ci sëy ba te nangu ko loolu ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp la war la cee toppit mooy ñoom ñaar ñëpp itam kenn ku ne di jéem sottal lii yàlla wax ne bokk na ci li tax mu mu mu digle ab sëy dafa wax ci alquran ne bokk na ci tegtali yàlla yi ak i màndargaam mu bind ay góor ak jigéen dogal ab sëy seen diggante ngir ku ci ne mën a am ca moroom ja ak dal ak mbëggeel ak yërmande kon dal gi ak mbëggeel ak yërmande loolu bokk na ci li kenn ku ne war jéema jéem a jox morom ja jéem ko wutal morom ja góor gi xam ne séy gi da cee war a sabablu luy andil jigéen ji nga ko seqal ak dal ak mu yërëm ko itam bëgg ko sopp jigéen ji it noonu kon loolu ñoom ñaar ñëpp ku nekk ameel na ko morom ji bu loolu jàllee nag ñuy door a nag li nga xam ne jigéen jéego jagoo ak li góor gi jagoo waaye liñ bokk ñoom ñaar moom la ca jiitu mooy ku ne xam fa ko yàlla féetale mu nangu ko doyloo ko la ca topp mooy ku ci ne di euh, sottal ca moroom ja li tax yàlla waral ab sëy te mooy ku ne amee ak dal ca moroom ja ku ne amee cofeel ak yërmande itam ca moroom ja buñ dikkee nag ci li ku nekk jagoo ci warugar ki nga xam ne mooy borom kër bi warugaram moom borom kër bi ci biir sëy bi moom la yàlla féetale kilifteef ci sëy bi kilifteef ndax ñu ànd ñoo ne mënut a ñàkk kilifa hmm. kilifa mooy danañ àgg fenn ñu war a def dara mu ne nii la bu fekkee kilifa amul bu xalaat yi wuutee duñ mën a def dara bu kii bëggee lii kii bëgg lii te kenn ñu difut morom ja kon duñ ma a def dara moo tax kilifa mënut a ñàkk mooy tax boobu xalaat yi wuute woon ki am kilif ki moom a kilifteef gi lam wax moom lañuy def ndax mooy tax ñu mën a dem bu fekkoon ne kilifa bu wuutee amee rek taxaw la ñuy def duñ mën a dem ndax kenn du du ëpp sañ-sañ morom ja mm-hmm. ba doxal la bëgg kon góor la yàlla jox kilifteef ci biir sëy bi kilifteef googu nag war na koo xam war koo doxe kilifteef gi lii li li mu koy sas li muy sas góor gi mooy muy jàppale jigéen ji kon ko yërëm di ko jéggal di ko baal kilifa loolu la war a seq ak seen yilif di ko jàppale ci wàll yëpp wàll yi man yëpp wàll yi ko mën a jàppale yëpp moo ci jàppale te di ko yërëm di ko di jëllale ay njuumteem di ko baal di ko jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne bu genn góor di bañ soxnaam ndax bu gisee ci moom lu ko neexul it dana gis ci moom lu ko neex kon la ko neexul na ko muñi la ko neex waaye bu gis lu ko neexul ci moom rek tax mu bañ ko walla mu bëgg a génn tànk bugg kon góor gi moom kilifteef bi yore kilifteef ci sëy bi kilifteef gi lim lim ko war doxale mooy muy yërëm mu yilif di ko taxawu di ko dimbale di ko jàppale di jëllale ak di ko jéggal tam di jëllale njuum di ko jéggal ji góor gi doxe nii yonent bi nee na dana bokk ci ñi gën ñi gën ku bëgg a ci ñi gën kon day fexe ba doxee ni digganteem ak soxnaam ndax dafa wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci soxnaam te man moom yonente bi man maa gën ci samay soxna kon mooy wax ne kon li tax ma gën leen loolu bokk na ci dama leen a gën ci samay soxna te ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci ay soxnaam kon góor li ko war moom ci tënk mooy loolu li ko war ci soxnaam ci tënk ci tënk mooy mu di ko jàppale di ko dimbale ci wàll yëpp tem kàttanam di ko yërëm di jëllale ay njuumteem di ko jéggal itam ay njuumteem bu dee soxna si li ko war ci borom këram ci tënk moom it mooy mu déggal ko mu déggal ko tey sàkku ngërëmam ci lu jaadu ci lu jaadu mu déggal ko ci lu jaadu di sàkku ngërëmam ci lu jaadu buñ ne ci lu jaadu nag mooy ci lu dëppoo ak bëggu yàlla bu koy déggal na ko déggal ci lu dëppoo ak la yàlla lu yàlla bëgg buy sàkku ngërëm itam na ko sàkkoo lu yàlla bëgg na ko sàkku itam ci lu yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi day wone àq ji borom kër ci soxnaam ni mu réyee mu wax ne bu fekkoon ne day danaa digal kenn muy sujootal kenn kon damay digal jigéen muy sujootal borom këram sujoot mooy li ñu xamee sujoot ci julli ñëw ba ci kanamam nga sujoot ci suuf si ni ñuy sujoote ci julli loolu xeetu màggal la boo xam ne yàllaa ko yeyoo mu ne bu ko bindeef doon yeyoo kon borom kër yeyoo ko ci soxnaam day wane kon ne euh, cër bu mag mag la borom kër am ci soxnaam jigéen ji nga xam ne it doxe naag borom këram ñii nu wax te mooy di ko déggal ci lu jaadu di sàkku ngërëmam ci lu jaadu yonente bi nee na jigéen ju doxe nii digganteem ak borom këram day am li bëgg àddina ak àlaaxira àddina si moom mën a ci am sëy bu àjjana la cay am moom la ci nit ñuy bëgg lépp àjjanaa koy tënk te dana ko ca am ci topp borom këram ci lu jaadu dana ci àjjana ci borom këram gërëm dana jëpp jigéen ju faatu te ba muy faatu borom këram gërëm ko ci lu jaadu tey dëgg ndax gërëm la doon dëgg ci moom te lañ ko gërëmee itam doon du jaadu tey tàbbi àjjana waxoon na jigéen it bu defee ay farataam boole ca topp borom këram moom itam day tàbbi àjjana dañ koy tànnaloo sax bu faatoo ñu dañ koy tànnaloo ne ko fu la neex ngay jaar dugg àjjana àjjana ju la neex ngay tànnal sa bopp loolu kon day wane kon jigéen bu taxawee ci li ko war ci digganteem ak borom këram lañ cay jëlee ci njëriñul àddina ci nak àxira am amna soxna su ma sa ñëw ci yoonte bi am soxla ba mu waxtaanee moom soxla sa ba noppi yonente bi ne ko ndax am nga borom keur mu ne ko waaw mu ne ko doxé ak mom mu ne ko ah ma nga def luma man de mu ne ko ah la def xol na nga seen bu baax de na nga xam ne mooy sa àjjana mooy sa sawara mooy man nga amee ci moom àjjana mm-hmm. waaye itam nag sawara mën naa sababoo ci da nga moom bu fekkee doxaleeg moom doxaloo jaadu kon euh, arti góor ci soxnaam mooy soxna si déggal ko di sàkku ngërëmam ci lu jaadu mm-hmm. loolu tënk la ñaar ñooñu kon mooy ñaar ñi nga xam ne ñooy sos njaboot waaye bu buñ demee yàlla mën na caa feeñal ay doom njaboot gën a gi mu gën a yaatu bu dee ay doom feeñ na ca nag li ñu njëkk xam rek mooy doom moom xéewal la gu yàlla di defal nit ci coobareem moom yàlla ci coobareem moo wax ne moom yàlla mooy may ku ko soow mooy may ku ko soob doom yu jigéen rek rek di may ku ko soob doom yu góor rek di may ku ko soob doom yu góor ak yu jigéen ku ko soob mu bañ koo may jenn doom ko delloo rek kon mbirum doom moom coobare yàlla rek la mooy may ku ko soob lu ko ca soob ku ko soob moo ko ca may lu ko ci lu ko ca soob ku ko soob itam mu xañ ko kon ci coobare yàlla rek la dellu loolu la ñu war a jiital ci mbirum mbirum doom kon lu caagee na nit ki ak ngóoraam mooy tax mu am doom wala ak yaafusam di ko tey am doom moo xam góor gi la moo xam jigéen ji la ku am wéradi nag sant nañ ko mu sabablu mu sabablu mooy bu fekkee ñi am xam-xam ci wàll googu jàpp nañ ni diw mii kët nangam moo tey mën a am doom te nangam je mu am ay sabab sabab yu ko mën a saafara sant nañ ko mu jaar ci sabab yooyu ngir saafara lool waaye nag foofu rek la cee la cee mbiram yam ndax dana am ñoo xam ne gis ñoom benn genn jàngoro te am doom moo tax sabab lu rek lay def ni nit di war a sababloo saabu ko yàlla tegee am natt moo ko teg natt bi waaye digal na ko mu sabablu itam ngir mu teggi ko waaye bu sababloo nag wàcc na bu ko yàlla teg teggee moo xam ne moo ko teggi ci coobareem bu sababloo te teggiwu ko itam moo xam ne la ko war moom def na ko yàlla moo doxal coobareem waaye foofu la yem bu jàpp ne yàlla da koo mere wala dara yàlla daa doxal coobareem ci moom rek man naa am sax bëgg gum ko bëgg a tax ndax xam na ne yàlla danay bëgg a defal nit danay danay namma jox nit ab cër ab cër boo xam ne jëfam du ko ko mën a may mu teg ko natt te natt boobee la koy jaar lay jaarale cër ba mu koy jox kon nit bu ko yàlla tegee natt bu defee la ko war ci sabablu rek la ca des nag na ca xeram dal te xam ne lu baax rek lay doon ci moom baax rek lay doon ci moom bu fekkee nangu na nag ko yàlla teg wàllu njaboot kon noonu lay demoon bu njaboot amee nag moom it ay àq day am yuy war wayjur yi ci doom yi am itam luy war doom yi ci wayjur yi kon ku ci ne moom it day ameel moroom ja ay àq ni ñaar ñiy dencante ku ci ne amee la morom ja àq bu ay doom amee itam way jur doom yi ku ci ne day amee morom ja àq ci tënk li wajur ameel doom àq ji ko ameel mooy yar yar yar moo tënk lépp yar ko ba mu mën a amal boppam njariñ mën a amal mbolo mi mu nek itam njariñ nit da waram mana a bopam mana mën ñim nekkal day tax mu man ko nak mo ñu yar yar bu rafet yar be nak way juru way juru ye ci jitu yalla dafa wax ci alquran la yeen ñi gem na ngeen fegal seen bop sawara fegal seenum njaboot sawara nit ñi muy fegal njabootam sawara nak moy mu yar ko yar bu rafet ba mën a doon jaamu yàlla amal njariñ boppam mana amal njariñ itam mbooloo mi mu nekk yar boobu bu amee day am njariñ ju muy amal société bi nit bu yaroo day doon njariñul société bi bu ñu yaru baree day doon njariñul société bi waaye day doon njariñul way juri seen bopp ku ne xam na ne ku ne xam na bu amee njaboot gu yaru li xelam di dale xelam day dal moom fu mu xelam day dal du ragal waaye bu amee njaboot gu mel ne neen xelam du dal fu mu toll mi ngi ñu koy àkk si sa doom ji def na nàngam sa doom ji def na nàngam sa doom xelam du dal société bi itam noonu ñu yoree ko buñ ci baree rek société bi ak dal du ci am waaye ñu yore buñ li ci gëna bari rek ak dal gën ci am xel mu dal gën ci am lolu ci yar ñu adina lu teew la waye ki yar ñabo tamit ba koy jéedee ñu àllaaxira yi ba yoonte bi nee ko am ay doom yar la yar bu rafet dañuy dox digënté ak sawara ñu dox digganteem ak sawara rawatina buñ dee doom yu jigéen ku mm-hmm. doom yu jigéen yar leen yar bu rafet mm-hmm. dañuy dox digganteem ak sawar yar nag mooy lan wala nuñ koy defee nuñ koy defee mooy bokk na ci teel a teel a bëggloo xale bi lu baax teel teel ko bëggloo lu baax teel koo xeetal ci lu baax nekkagul farata ci moom waaye ñu teel ko koo bëgguloo dañ ko koy bëgguloo itam bu dee xale du doon ay wax waaye dañ ko koy won ci jëf mooy li nga bëgg mu nekk ci xale bi dangay ngay ba mu nekk ci yow boo bëggee xale bi doon ku dëggu da ngay dëggu yow boo bëggee xale bi am diine da ngay am diine yow xa am na xale yoo xam ne ñu ngi ñu ngi jànge ci julli la ñuy jànge wax wala ci la ñuy jànge daal jéemantu ndax dañuy gis seeni wajur di julli am nañ ñoo xam ne leneen la lañuy jàngantoo loo xam ne amul solo noonu solo noonu kon li gën muy nit di nekk ci lu am solo ba ay doomam di gis ca moom loola di ko teel a jàng di ko teel a roy di ko teel a bëgg moo xam lu aju ci am diine moo xam lu aju ci am jikko ju rafet ci bëgg ay doomam dëggu day dëggu ci seen kanam waaye am na ñoo xam ne dañuy ñàkk a dëggu ba noppi bëgg seeni doom dëggu du yomb du yomb ndax xale ay wax du am jeexit ci moom waaye bi am jeexit ci moom mooy li muy gis ci ay waajuram ndax xale itam yàllaa ko bind noonu te jàpp ne ay waajuram luñ nekk rek lu baax la luñ nekk rek lu jaadul te jàpp ne daanaka am nañ lépp man nañ lépp lu nekk lu baax la lu nekk lu jaatu moo tax waajur war a bàyyi xel ci loolu ba doomam di gis ci moom lu baax ndax da ko jëlee ci moom lu gis ci moom dana ko jëlee ci moom bu dee dana ko jëlee ci moom bu dee lu baax dana ko jëlee ci moom moo tax kon mu nekk royukaay mooy jumtukaay bi jiitu ci jumtukaay yu yàq ba nekk royukaay ci xalé bi lu baax lo bëgg mo ne ci mom nga fexé ba nek ci yow safaan bo bañ mu nek ci mom nga fexé bam baña nek ci yow bu fekké gisu ko ci yow rek duko mëna jëre fenn bu dé lu baax lu gis ci yow itam dana ko jëre ci yow kon diine ak lu baax dañ ci téla xirtal xalé bi diko ko ko lo loo di ko bëgg lo yonent bi saa sallam dafa waxoon nag xale bu demee ba am juróom-ñaari at nañ koy bëgguloo julli di ko ko digal di ko digal di ko julliloo ak nu mu jullee baax na waaye bu xam ne kon julli lu am la lu baax lu ñu war di def la nu mu ko defee baax na ndax nu mu ko mën defee rek loolu dana tax mu teel ci tàggatu ba dem bu saabu nekkee farata ci moom mu woyof ci moom yeneen yi itam noonu yeneen yi itam ñu teel ko tàmmal xale teelal ko bëggloo lu mel ne ci euh, koor lu mel ne woor xam nga julli ak woor bu yàlla dimbale ba mu teel cee tàggutu bu demee ba doon mag ba mu nekk farata ci moom dana woyof waaw ku ci teel toon a dem rek ba doon muskalaf ñu la julli war na la wala woor war na la rek lu bu ko doon tàmbali mën naa bañ a woyofe noonu mm-hmm. moo tax ñu bëgg di ko teel tàmmal xale yi lu mel ne koor sax danañ ko teel a tàmmal xale moom it euh, du doon koor gu mel ne sunu koor mm-hmm. waaye moom te da nga koy xamloo ne koor baax na am na nii lañ koy defee lu mu ca def lu mu tuut tuut bu ëllëgee mu yokk bu ëllëgee mu yokk bu ëllëgee mu yokk mm-hmm. buy def ñu koy neexal euh, danañ wax ne sëñ Tuubaa daana def ci koor daana def bu koor jotee muy woo xale yu ndaw yi mm-hmm. di leen laaj yow ñaata fan nga wooragoon mm-hmm. ku nekk wax li mu wooragoon kenn ku ne li mu fan yi mu woor da koy neexal neexal bu tolloog moom xaalis da ko jox xaalis ndax xale xaalis bi la xam mm-hmm. xamul dëgg-dëgg la ci yàlla jigéen yooyu te ak bu xaalis bi moom la xam moom la bëgg bu ko ci neexal daa tax mu sawar ci koor la ciy jublu rek mooy mu sawar ci boobu màggee Mhm. kon nek faral ci mom mo woyof ci mom kon non lañuy ñuy yare xale ci diko ko xemmeem loolu baax di ko ko mhm. ak diko ko wan nak mu nek diko yar mu nek ci mom bam nek roi royukaay ci mom waye jangal ko ci yar bi lay bok mhm. jangal nañ ko ko won ci misal waye nañ ko ko jangal itam nañ ko jangal lu baax jàng kon daa war jàng li jàng ci boppam ci yar la bokk jàng nag buñ ko waxee mooy jàng diine ak lépp lu waax ak bépp xam-xam bu baax bu am njariñ jàng xam-xamu ak bépp xam bu am njariñ xam-xam amal njariñ nit ki ci dundam ci àddina ak bu koy amal njariñ ci dundam ëllëg bu àllaaxira bépp xam-xam bu demee noonu rek xam-xam bu ñu war a jàngal njaboot bi la bokk kon li war woy jur ci doomam li ko tënk lépp rek mooy yar ko hmm. yar yar nag da yittewoo jëmm ji yittewoo xel mi da yittewoo xol bi ndax nit yooyu ko yooyu moo ko composé jëmm mu yaram wi ak xel mi ak xol bi ñett yooyu ñooy daje nit am waaye du jëmmi kese du xelum kese du xolum kese ñett yëppay ànd pour yar ñett yëpp lay lay lay lay boole di ko di ko taxawoondoo ba yëpp di màggaloo ndax yar yar day mel ne rek euh, nit bi feeñee day mel ne aw jiw hmm. aw jiwu mooy man-man yëpp yàlla da ko dëxañ ci nit yàlla dafa dëxañ ci nit man-man yëpp man-man yooyu nag dañ ko war a jàppale ba man-man yooyu di feeñ di màgg ni mu war a màggee hmm. loolu ci nekk bu matee mën koo jariñoo mën a jariñ boppam mën a jariñ ñi mu nekkal man-man yi aju ci jëmm ji ak ji aju ci xel mi ak ji aju ci xol bi hmm. jëmm ji moom di ko taxawoo ba muy lekk lu baax di naan lu baax di amug wér di tëdd fu baax yu mel noonu mooy mooy mooy yaru jëmu ji mooy tax jëmu ji mën a màgg màggeen wu rafet bu baax woo xam ne euh, daana ci mën a sukkandiku ba mën a jëriñ boppam jëriñ ñu mu nekkal bu dee xel mi ci njàng lañ koy yare am xel mm-hmm. ci njàng lañ koy yare bu dee xol bi ci diine lañ koy yare mm-hmm. moo tax yooyu di ànd taxawu jëmu ji taxawu xel mi taxawu xol loolu bu ko nit defee ci njabootam di yonte boo xam ne am doom yu jigéen yar leen yar bu rafet dañuy dox digganteem ak sawara safaan bi it ku ko defoon sàggan amul njaboot sàggane leen sàggane leen bañ leen a yar yar bu rafet bi nee nit defut lu yées loolu mooy loolu doy na sëkk sëkk bàkkaar bu defutoon leneen lu dul loolu itam loolu doy na ko sëkk bàkkaar mm-hmm. lépp lu ñuy jële ci bàkkaar rek loolu mën na mën mën na ko koo jox muy amul njaboot sàggane leen bañ leen a yar kon loolu mooy warugaru wayjur ci doomam bu dee warugaru doom nag ci wayjuram moom it mooy déggal ko déggal ko buñ demee ba magee itam mu leen di taxaw mu leen di taxaw kon doom daa war a déggal way juróom ba tey ci lu jaadu ci lu jaadu war leen taxaw itam rawatina buñ demee ba ba mage yàlla fu muy waxe yi war nit ki te cay jiital wéetal ko moom yàlla wéetal ko jaamu ko moom rek bañ ko booleeg leneen waaye lam cay teg mooy rafetal jëme ci ñaari way jur ci ay béréb yu wuute noon la fa dikke jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaaleeg lenn ta rafetal jëme ci seen way jur waxin woowu dikk na ci alxuraan ci béréb yu wuute bu jee teg leen doo leneen waaye kon noonu la koy topp saleen yonent bi tam bi ñuy wax yi yées jee mooy yi gën kon yi jaadu yi yées itam yonent bi lam ca jiital mooy bokkaale waaye lam ca tegit mooy dëngee ñaari wéjur yàlla lenn moo yées ci bàkkaar yi waaye la ca topp itam mooy dëngee ñaari wéjur mooy ñàkk leen a déggal wala ñàkk leen a ñàkk rafetal jëme ci ñoom kon àq jooju la doom ameel waajuram yonent bi dem ba wax ne doom bu ko waajuram gërëmee ci lu jaadu yàlla da koy gërëm waaye bu ko meree ci lu jaadu yi yàlla da koy mere mooy bu ko meree te lam ko meree tege mer ma tege ci yoon kon jàll day mere itam Euh, doom joojee dane ngërëmul yàlla mi ngi ci ngërëmul wayjur merum yàlla it mi ci merum mi ngi ci merum wayjur waaye luñ ci wax dañ koy teg ci lu jaadu ci lu jaadu ndax wayjur it mën naa gërëm doomam ci lu jaaduwut boobu du tax yàlla gërëm mën naa mer doomam itam mer moo xam ne tegewut tegewut ci yoon tax yàlla mere ko waaye bu ko gërëmee ci lu jaadu yàlla dana ko gërëm bu ko meree itam tamu jaadu ba tey yàlla dana ko dana ko mere doomit li tax mu war a gën a góorgóorlu ci way juróom mooy li ko ci yàlla digal moom it day lu ko mën a may àjjana ci lu yomb doom bu déggalee way juróom taxawu ko rek da ci daal di àjjana ci lu yomba yomba yomb yonent bi naa wax ne jékki-jékki rek ñu ne daal lu mel ne bu doon wax ñu ne wolof dañ naan rek yàlla na tuskare yàlla na tuskare wala su booful ma su booful ma ko yàlla na tuskare su booful ma ko ñu ne ko ak ah, kan la mu ne kii am ñaari waajur wala kenn ci ñaari waajuram nekk ak moom ba doon mag te ami wuja àjjan amewu ja àjjana mooy te sàggan ba deful ci moom lu ko may àjjana ndax dafa yomb boobaa ci am way jur sàggantumaa mu doon mag la cay may nit àjjana dafa yomb ba tax ku sàggan ba amewu ko ca yonente bi ne na kooku yàlla na tus kawe wala su booxul ko kooku mooy kon ku ku sàggan sàggan la dem na ba ne it <coughs> kii dëngee ñaari way juróom du dugg àjjana ku dégg ñaari way juróom mu dugg àjjana kon li war doom ci ñaari way juróom mooy mu déggal leen tey rafetal jëme ñoom dëgg leen mooy safaanu loolu mooy safaanu loolu ñàkk leen a déggal ak wala ñàkk a rafetal jëme ñoom kon buñ seetloo njaboot gi ñaar ñi ko sos mu ñaar ñi dencante boroom kër bi ak soxna si ku na wax nañ la ko war ca moroom ja bu ca ay doom juddoo itam wax nañ diggante waajur yeeg doom yi ku ci ne la ko war ca moroom ja hmm. waaye bu ñuy wax njaboot it bu ab sëy amee lañ cay lañ cay war a bëgg di ko ca ñaan di ko ca séentu mooy mu sax hmm. mu sax mu sax ba yàlla di moom kenn ci ñaar ñi ko seen ko yalla di mom kenn ñaar ko sefon loolu la bëgg ci sey waye yëpp adina te de yitam xam nañ ne do ne sey yëpp day neex rek man nañu dem ba am lu ca xew lu lu lu ci andi reng reng reng reng wala mo taxé lu jaar di xam bu ci àggee ñu doxé la ñu ci wara doxé bu buñ ba reng reng am ci sey ñu ci wara doxé itam jarna xam ndax ba tey mi ngi bokk ci jéem a saytu mbirum mbirum njaboot bu rëng-rëng amee nag mooy dem nañ ba sëy bi daal niñ ko bëggee woon demeetul noona bu loola amee war nañoo am ay jéego yuñ ci yuñ ci def ak taxawaay yuñ ci taxaw taxawaay bi ci njëkk mooy jéem a jéem defar jéem a defar mooy bu jafe-jafe amee ñu jéem a defar jéem a defar gi bokk na ci ñu seet ñu rafet ñu rafet xel ci ñaari ci njabooti ñaar ñi ko seq mooy bokki góor gi ak bokki jigéen ji ñu seet ñu rafetal te bëgg lu baax ñu jéema a defar diggante bi loolu la yàlla diglé def na buñ demee ba ragal ak juuyoo diggante ñaar ñiy sëy nañ seet ñu rafet xel ci bokki góor gi ak ñu rafet xel ci bokki jigéen ji ñu jéem a ñu jéem a jubale jéem a rafetal diggante bi jéem a defar diggante bi buñ ko jéemee yàlla dana leen mën a defal ak jàppandal bam ba juboo am kon li liy njëkk a jàpp mooy buñ demee ba rëng-rëng am nañ jiital bëgg a defar ak bëgg a bëgg a looloo taxit yonente bi moytuloo moytuloo kenn ci ñoom ñaar di sabab lu lu yak digënté bi moy day lo gor gi moy yak moy mu yak digënté bi ni muy moytuloo jigen ji de mu yak digënté bi mooy day moytuloo ku ci nek dal moy tax moy def du tax ak taggo di am rëng-rëng du am rek ñu dal di nekkon taggo de dal di am kess ko nda daa war a moytu waral tàggoo bi di def luy mën a jur ak juboo ak ub yéwénal ñu ko waxee ci ginnaaw ne ne bu dee góor nee na ko boo gisee ci sa soxna lu la neexut bum tax nga bañ ko waaye lu la la ca neex nanga ko muñu la ca neexut jigéen ji itam mu wax ko ne moom lu doy waar la dafa wax ne jigéen joo xam ne ñaan na baat ñaan na baat ci lu ko jarut jigen du ñaan baat ci lu ko jarut du fóon ta dugg aljana non la ko waxe jigen du ñaan baat ci lu ko jarut du fóon ta dugg aljana moy jigen yu lu ngir ab sey jeex ci lu ko jarut du fóon ta dugg aljana man dama ci dama ci wax ne jigen la wax way ragal na na goor itam non lay demee rek ndax ñoyam ñom ñaar ñepp ñu xasse ci sey bi ci war a doon seen bëgg-bëgg mooy sëy bi sax ba yàlla moom ci kenn kon ku ci sabablu mu dañ rek ci lu ko jarut bu ko waxee ca jigéen ji ragal naa ne góor gi itam noonu lay demee bu ne jigéen bu ñaanee baat ci lu ko jarut du foon ko du ko lay ragal ne it ne góor itam bu bu fasee soxnaam ci lu ko jarut ragal naa ne moom itam kon du foon këru gàjjeen ndax foo mu leen xajale ñoom ñaari ci wàllu googu euh, ak tàqalikoo yàlla mi waral ab sëy moo xam ne it mën nañoo dem ba tàqalikoo mooy sës mooy gën sax mooy gën bu ci àggee waaye ba tax mu maye ko waaye foofu la yéen di waxee ne yàlla maye na loo xam ne maye na ko dëgg la ndax xam na ne munta ñàkk tey danañ àgg foo xam ne mu am mooy gën mu bañ a am ñaar ñi sëy waaye buñ mënoon a wax ne maye na ko te sib ko dañ naan noonu lu demee da koo maye waaye nag doonu lu ko neex muy muy ak tàggoo cib sëy ñi sëy ba saag ñu tàggoo yàlla maye na ko ndax xam na ne dana àgg foofu mu demee noonu mooy gën ci ñaar ñi ko seqoon sax waaye nag taxul mu neex taxul mu neex ko kon bu dëng-dëng amee nañ fexe ba yéwénal mooy ba euh, rafetal ba jubale ñaar yi nga xam ne ñoo ko seq kenn bañ a sabab lu luy tax sëy bi jeex bu ñu demee nag ba ba xam ne nag munta ñàkk yàlla maye na foofa am waaye bu tàggoo di am it wax ne nañ ko defee nañ ko rafetal nañ ko rafetal dafa wax ne ñuy sëy daal benn ñu ànd ci njëkk wala ñu tàggoo ci njëkk waaye lépp ci njëkk la war a doon njëkk mooy ci ak rafet buñ dee ànd nañ ànd ci lu rafet buñ demee ba tàggoo mënta ñàkk it tàggoo ko nañ ko defee ci anam ko rafet ndax tàggoo man naa am tàgg noonu du ci juddoo noonu diggante ñaar ñi wala noonu diggante sax seeni njaboot loolu mooy tàggoo bu rafet dañoo xam ne rek dem nañ bu mu fi sës waaye nag ñu def ko ci anam goo xam ne du yàq leneen du yàq leneen seen gi dañ na waaye nag leneen luñ seqoon du ko yàq bu dee ak mbokk doxal na si diggante du yàq dara ci mbokk gi bu dee ay doom am na dox na seen liggéey itam du yàq dara ci ñi ni ñu war a taxawoo seen njaboot gi dox seen diggante loolu mooy tàggoo bu rafet kon yàlla dafa wax ne ñuy ànd ci ànd bu rafet mbaa ñu tàggoo ci tàggoo bu rafet waaye euh, tàggoo rek ku nekk di waxal moroom ja wala diggante bi yàqu wala mbokk gi yàqu loolu yàlla diglewu ko dara nañ ko moytu sëñ Mahamadul Amin Oustaz lii laa bëggoon a ci tàmbali bi nu mën koo tàmbalee waxtaan yu aju ci njaboot gi euh, li nga xam ne moo koy lal muy fondement yi ak base yi nga xam ne ci lañ ko war a tabaxee ak itam ñi ko séq kenn ku ne la ko war te moroom muy ñaar ñuy sëy ak ñu demee ba njaboot am ci itam bu demee ba rëng-rëng am itam yan taxawaay lañ ci war a taxaw maa ngi jégalu ñëpp nag wa salaamu aleykum wa wa barakaatu. waxtaan bi leer na. gis nañ ci xam-xam bu leer gis nañ ci it defaru boo xamante ne bii nekk na ci diggante nit ki ak fi mu dëkk ci famille wax na ci waxtaanam mais famille pour mu am foo góor ak jigéen am góor ak jigéen bu amee doom mën naa am waaye am na ñuy am doom am na ñu dul am doom am na ñoo xam ne bu ñu amee doom sant yàlla bu ñu amul doom mere seen wujj wala ñu mere seen goro seen bokki wujj yooyu moom dañoo leen liggéey am na ñoo xam ne danañ ci jéem a sabablu pour am doom am na ñoo xam ne duñ sabablu am na ñoo xam ne buñ sababloo amuñu ñu am ñu tuumaal loolu lépp feeñ na ci portail waaye yàllaay jox doom ku ko neex jox doom ju góor bu ko neex jox doom ju jigéen bu ko neex am na ñoo xam ne yëpp la leen di jox waaye ñëpp a baax. Mm-hmm. parce que moo bind góor moo bind jigéen wax na it ci waxtaan bi ne ñi nga xam ne ñoom fexe ba am ab sëy muy góor ak jigéen kenn ku nekk war ngaa sabablu fexe ba sëy boobu ba a tas nekk fi di dox ba kenn suul moromam waaw mu ne dégg nañ wax ji xamu dégguñu ko wax na tamit ci buñ demee ba doom am nan lañuy def ba yar ko waxna ci mbiri jëm mu yaram li ñuy wax xont jël sa doom diko ko jox muy lek diko ko jox muy nan diko ko fu baax top ko bu fay waré nga fajj ko xamna lool day nekk ci yaram pour famille bi dess bi nekk fi ba paré am njëriñ loolu waxna ci ne ab sart la ay xol bi ñu di ko top di ko jàngal diine pour xol bi mëna baax waaye di ko li nga xamante li moy jang mi ñuy jang mo xam école la mo xam leneen la pour xel bi mëna mag ñet yoy yëpp wax na ko bu ko defé pour doom mën a baax waaye bu nga xamanteni bi dem nañ ba nek ci lool nak wax na timit ni goor ak jigéen mais ñi nekké kenn ku nekk dund ak sa morom ci njekk ak ci teraanga ben kenn baña indi kenn ben problème jigéen ji di sàkku ngeureumal jëkkeur jëkkeur ji di taxawu jabar waye kenn ku nekk timit diko def ci niko yalla yàlla boko defé ci no xam yalla yàlla wu ko du tax yalla gëreum la bëgg sa jëkkeur gëreum la tax nga indi ko yamba du tax yalla gëreum bëgg sa jëkkër gërëm la tax nga xeesal lu tax yàlla gërëm bëgg sa jëkkër gërëm la tax nga def say mèche wala nga def say greffage wala nga def sa yu mel yooyu defal say xef walla nga daal jël sa bëñ yi daal di koy defal ay sàkkar yàlla lu tax yàlla gërëm la même bu la sa jëkkër gërëmee waaye nag bu la sa jëkkër gërëmee ci yi nga xam ne yàlla gërëm na ko su boobaa yàlla daal di gërëm sa jëkkër gërëm nga am ñaari gërëm bu fekke ne it e, mbiram jabar ji la ak jëkkëram non la ki nga xamanteni bi da am jëkkër jëkkëram bëgg mu gërëm ko mu diko ko lu nekk pour jabar ji gërëm tamit na doon lo xamni lu yalla wax la waye bu fekke ne li yalla bañ la su boba amul njëriñ ndax nak dafa am règle bo xamne day wax ni kenn du top kenn ku yalla bindu ba yalla bindu di mer mm-hmm. bu ko su lolu amé rek ba nga xamanteni bi sammo nga ak sa borom kër yow nga sammo ak sa sa àqi borom kër ki sammo ak àqi jabaam ci li nga xamne mom la yalla teureul su boba kenn ku nekk ci ñaar ñi dencanta bi nga am say ngeureumal borom ginnaaw bo amé fi say teraanga wax na ci mbiri doom boko amé pour yar ko ndax xalé il faut ñu yar ko ba nga xamanteni bi su magge mën a bopam jëriñ ay wajurum am ngeureumal yalla joxe na ci ay exemple yu bari jigéen dem na ba am na fu muy toll moom jigéen mën naa génn àddina dem aljanna waaye ci ngërëmal jëkkëram waaye it mu teg ko ci li yoon yéeg li nga xam ne moom la yàlla wax wax na it àq joo xamante ne wala fooraayu àqu jabar wala àqu jëkkër ci jabar ba jox na la àddis ne la bu fekkoon ne jigéen yonent bi moo ko wax su jootaloon na borom këram su defoon su fekkoon yàlla day digle su jootal nit ci nit wala nit wala su jootal nit day digal jigéen mu su jootal boroom këram wax la nag su joot bi ñu ngeen koy déggee am na ñoo xam ne bu ñu ko defee déggee dañuy defee ne day ñëw jox ko loxo rek su joot daal du nuyu noonu ñun ñooy nuyoo noonu boo dee xool arab yi doo dem arab yi ay murid lañ doo dem arab yi ay tijaan lañ doo dem arab yi ay nangam lañ parce que arab yi am na murid am nay tijaan waaye boo dee seet sunni ñoo bu ñuy nuyoo dañuy fóon loxo fóon loxo mooy sujjóot comme nag duñu la wax ne la fii la ñuy teg nit ñi dañuy boole wàllu jëbeeg lépp rek sujjóot am na ñoo xam ne bu ñuy julli sax noonu la ñuy def seen jëbeeg seen bakkan beeg seen tuñ yeeg lépp la ñuy def ci suuf si parce que xamuñu nan lañ koy doxalee ñu bari noonu la def donc loolu bu yaakaar yaakaar nag loolu li jigéen di sujjóotalee jëkkëram ñëw taxaw sa jëkkër taxaw nga daal di sukk ci suuf daal di ci suuf pour màggal sa jëkkër loolu la ñu wax dafa xaraam sujjóot boobu am na nag ñu bëri ñoo xam ne boo leen joxee loxo sax boo tegee sa bakkan ñu jàpp ne bi yàllay wax la waaye demeewul noonu am na ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy fob seeni loxo teg ko ci seen dënn am na ñoo xam ne ci seen naq lañ koy teg waaye boo ne naq ñu ne kii daa réew te boo ne kii xam na baa ventre mooy naq rek tubaab yoo koy waxee noonu ñun dañoo bëgg suñu langue bu la neexee nga teg ko ci sa dënn parce que xamoo fu ko yonent bi daan teg ndax su daan julli nit ñi daaw nekk ci kanamam noonu rek la mel waaye li am solo ci mbir bi rek mooy li ñuy wax naan l'intention wala l'action rek gis nga boo amee yéene ci mbir góorgóorlu ca mën ngaa juum sax yàlla defaral la su ko defee ñu déggee ko noonu kon àq jigéen wala àq jëkkër ci jabar foor na fooraay goo xam ne bu yàlla doon digal kenn musu jotal kenn digal jigéen musu jotal jëkkëram ndax àq ju foor ci moom yonente bi même nga koy wax naan bu fekkoon ne jigéen góor mën naa lekk ay ween kon su jabaram baxalee ay weenam jox ko mu lekk ko tax sax mu fay ko li nga xam ne wala mu jot li nga xam ne mooy àqam pour foor rek bu kenn defe na nag nit ñi dañuy faral góor yi moo tax ñu koy wax déedéet ni mu waree góor ñi rek la waree jigéen ñi wax na la ko léegi ne nañ dund ci ak njokk ak njekk li la war yow jigéen mooy lal moo la war yow góor su fekkee ne yéen a ngi denc dencante bu ko defee xam nga mi ngi lay sàmmal balay wax naan la xale bi dañ ko jàngal joxe pour mu tàmm ko dañ ko jàngal woor pour mu tàmm ko dañ ko jàngal julli pour mu tàmm ko am na mag ñoo xam ne mënuñoo julli seen xol bi du ci toj waaye seen yaram yi nanguwu ko parce que xamuñu ko soxna Aysa radiyallaahu anha bi ñu anhaan nee na waa ansaar jigéen ñi daanañ jàngal seen doom yi woor ci jël ay doom yi tubaab noonu ñu koy tuddee ay séet xam nañ nañu ko xam ci mbooloo mi waaye xam naa xale yi toll ni ay bàmbeeg ñun duñ ko xam waaye ñi ko mag kawatal li ñoom day Marie ñoom danañ xam doomi séet ay sagar lañ koy defaree ba pare defar lu mel ni ab bal def ko ci kaw mu nekk bopp bi boo demee sax ci ñi def yi dañ koy defar lu rafet boo xamante ne boo ko xoolee da lay niru benn africaine boo xam ne elle est de teint noir bu ko defee nee na yu mel yooyu lañ daan def di ko naxee suñu doom yi pour di leen jàngal woor suñ jooyee ñu jox leen fowukaay yooyu ñu foo ba fàtte ko nelawaat ñu leen ciy jàngal woor bañ doon mag tàmm ko bu ko defee léegi-léegi ñu xiif jooy ñu taal benn taal ñuy xool muy tàkk ñu naan xëy na suñu yaay léegi mu yàq ba far nelaw bu ko defee ñu teggi bu yeewu jant bi so noonu dañ ko jàngalee doom woor jàngal julli bi booy julli di mag ci kanamam waxuñ nag nga jël sa doom joo xam ne day fu mu taxaw mën na faa tuur ndox di saw nga yóbbu ko jàkka ja pour jàngal ko julli day saw ci jàkka ji te loolu baaxul loolu nañ ci xàmmee loolu boo dee julli sa kër ànd ak say doom mën leen di julli ñu ci kër gi jàngal leen booy dem jumaa ji wala jàkka ja boo yóbbu sa doom na nga yóbbee ko xàmmee koo xam ne du sobee jàkka ji loolu aussi lu baax la wax nañu la ko ci biir waxtaan bi jigéen ji ak góor gi bu ñuy sëy wax na la ci commencement bi na la sa baay mën na laa maye sa nijaay mën na laa maye ku sa baay jox sa kilifteef dénk ko ko comme li ñuy wax procuration kooku it mën na laa maye waaye jigéen moom faaw ñu maye ko waaye it buñ ko dee ko laaj buñ ko laajee xalaatam mu lànk duñ ko maye buñ ko laajee xalaatam noot mu noppi ñoo xam ne nangu na buñ ko laajee xalaatam mu jooy ñu xam ne nangu na yooyu yëpp pour wane na rek jigéen kenn du ko jël rek daal di koy taxañ rek maye ko loolu wax na la ko ci biir nga xamaale ba ci mais soo amee sa doom boo ko bëggee maye il nga laaj ko xalaatam ba mu d'accord ñett yii nag ci la ñuy xamee ne d'accord na bu jooyee nga xam ne d'accord na bu ne d'accord naa nga xam ne d'accord na bu noppee nga xam ne d'accord na waaye bu ne déedéet doo ko maye su ko defee nga xool ci tamit li nga xam ne mooy intérêt moom ndaw si ki ngay maye waaye yow gul bul ci xool rek sa intérêt kese kese xëy na dana ma may xaalis xëy na dana ma may or xëy na dana ma ci yóbbu màkk xëy na dana ma ci def nangam defal nangam bal sànq sa doom bu boobaa bu àllaaxira da nga ko yoreel àq joo xam ne da nga koo fay bu ko defee foofu mën nga faa fay ndax mën ngaa indi julli yu baax indi koor yu baax indi azaka yu baax indi dem màkka yu baax indi shahada bu baax waaye nga indi ko rek fekk yaral nga sa doom àq nga dem bay bëgg a dugg aljanna na ne la yow kat yoraloon nga ma nga daal di koy fay bu ko defee yow daal di dem safara moom mu dem aljanna xam naa dinañ ne waa ji wax safara del siwaat na ndax sëñ bi wax na ba pare tudd safara aljanna tudd <laughs> waaye tudd ku demul ku dem safara dangaa wax jëmul aljanna rek ku dem aljanna tamit ñu xam ne li moom safara damaa jabe nag faaw ma góob ndox de moom dara yeggale yu sëñ bi doon ko defee loolu ci waxtaan wi ragal naa ne nag xam naa du ñàkk darañ ko joxaat mu yeggale parce que am na solo gis naa ne nit ñi nelawuñ jigéen ñi nag ñoo gën a bëri ñoo fi gën a bari ragal naa ne am na góor ñoo xam ne xam naa moo jógee danaa wër néeg yi ku mu fi gis ngay nelaw moom bu doo fi ñëw déwén parce que bu dee nelaw dong la seen lal yi gën a nooy lal yi nekk fii moom bu nga jógee moom bu soobee yàlla loolu danaa ci dinaa ci yëngu euh, jigéen ñi ñoo fi nekk di xollee ka togg ak gërëm ba pare dikk ci baas bi toog góor yi ñu doon xollil lu defar dugg ci dégg yi na loolu moom yaakaar naa ne àdduna bi day bëgg a dugg loolu faw ñu réglé ko moom bala ñoo waaw ndax am ñoo xam ne ñu ngi ci biir eh, bu ko defee waxtaan bi dañ cee war di jëriñ gàmmu soo ci demee wala nga dem ci màggal wala nga dem ci xewu diini lekk baax na ndax bokk na ci naan baax na bokk na ci solu yëre yi nii yëpp baax na ci parce que. wala yàlla joxalee xéwal da nga koy feeñal waaye nag dem ci yu mel nii loolu moom lañ ci gën a sàkk yee baax na lool waaye xëy na mu représenté 30 pour cent wala 40 pour cent waaye yu mel yii nga xamee ci dara xamee ci diine ñi fi teew yaakaar naa ne ku ci dem danga nga xam nooy sëyee parce que wax na la ci exposé bi ci commencement bi ne la jigéen day buñ koy maye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na danañ fekk waa dëkk bi àddina bi di takk jigéen. ci benn sabab ci ñeent wax na la ne la jigéen danañ koy fekk mu am ab taar ñu takk ko danañ ko fekk mu am alal ñu takk ko danañ ko fekk mu am askan ñu takk ko waaye booy takk yow te bëgg lu baax li lislaam wax mooy takkal borom diine ñett yooyu ci des bu ko ci fekk si baax na waaye boo ko ci fekk si wul tamit te da ko ciy fekk si nag da ko ciy fekk si boo takkee ku am diine dina rafet parce que ku rafet mooy ku set rek la beauté est relative des fois nga gis benn nit defe na rafet na waaye ci yow la rafet su fekkoon ne rafetaay dénk lu relatif kañ lu am na waaye nit ki ki nga yàgg gis day rafet ci yow bu yàggee da nga koy miin parce que miin mooy rafetaay dafa relatif léegi nag bu fekkee ne dafa am diina dina set te ku set di nga rafet mënoo di jàpp juróomi yoon ci gis bi di sangu ba pare di ñaaw loolu kon soo ko defee rafetaay bi fekk si na diina ji waaye rafetaay bi ba tey taar bi dina ko alal ji dina ko fekk si ndax gis nga bo amé diina da ngay doylo lu génn sa yoon du ci nek bo ci amé baxna na ci amul do ci fitnal sa jëkkër do ci fitnal sa bop bu ko défé am nga alal parce que bo doylo rek am nga kofu for bo xamné du jeex ndax yonent bi loolu wax néna na alxanaatu kanzul la yafna bo doylo rek am nga magasin wala am nga ben koofu for wala am nga banque bo xam du jeex ndax nak wala fi dañuy wax borom ngàddu gura yegul borom bañe bu fekkee ni bo bëggee yéey rek am nga gura jërul ngay denc fañ mi ngi mel ni avion yi rek da nga naan ñun amuñu avion duñ ko defar waaye ñoom ñu defaral ñun suñu seen avion bu ñu soxlaa ñun indi suñu paas indi suñu xaalis jënd billet daal di ñëw ñu réserver la nga ne noonu comme fi ñuy def noonu ngeen dem boo wàccee bàyyi leen ñu nettoyé defaraat entretien defar yëpp bu ko daal yéegaat loolu sax moo gën moom avion parce que foo koy gaare dañuy wut ay terrain di ko ci gaare di ci fayal bàyyil noonu rek jëndal bii rek donc bul yaakaar ne da tardé tardé woo loolu lu am solo la lool bu ko defee jax jàngaat nañ ci biir exposé bi ne nit ñi sëy nañ fexee sëy ba dee góor gi gaañu moom dégg naa nag mu wax na ci wax ji ne góor gi gaañu wala jigéen gaañu kenn ci ñoom ñaar gaañu waaye ragal naa lig léegi ñu gaañandoo yàlla buñ gaañandoo nag ñun moom waaye léegi-léegi ñu gaañandoo bu ko defee léegi loolu mooy ab sëy am sa borom kër pour dalal ko di ko dëfal bëgg ko mu bëgg la ngeen nekk ci jàmm yow fa nga war a féetee nga féetee fa moom fi mu war a féetee mu féetee fi loolu wax na ko ci biir waaye est-ce que ñun góor ñi ñuy féetee fi ñu war a féetee est-ce que jigéen ñi fi ñu war a féetee ñu ngi koy nangu am na jigéen ñoo xam ne pour ñoom ñooy ñooy ñooy sol kilo am na ku ma dégg muy wéy du ma wax nag turam waaye xëy na ñu bëri xam ko parce que yaakaar naa moom ñu bëri dinañ ko xam maa lànk maa bañ euh, du ma du ma du ma fa am objet loxo mooy takk tubay loxo mooy takk sër loolu wax ju yàqu la rek catapans yee koy wax rek boo koy defee nit ñi topp leen ci waaye xam nañ ne góor ñi ak jigéen ñi tolloowuñu jamono yi yéen a gis tubaab yi nga xam ne ñoo gën doon catapans ñëpp ñu ngi def ay football ak ay basket ak ay yu nekk waaye mosu gis ñu boole góor ak jigéen fii nag dañuy wax fu góor nekk na fa jigéen nekk Touba moom euh, xam naa ne fa nga xamante ne moo nekk mairie ba ragal naa ne defuñu góor parité góor fenn jigéen fenn yaakaar naa defuñu loolu dégg naa ko ah, fii nag ñun danañ ko def am na ku fi nekkoon président de la république ci jamono fokk fexe woon na ko fee def façon campagne la jigéen ñi ci la ñuy jaar genn wàllu jigéen ñi ci côté boobu mën nañoo dem safara parce que dañuy jéem a égaler dañuy jéem a tolloo ak seen ay borom kër te mënuñoo tolloo am na loo xam ne góor a ko am na loo xam ne jigéen a moom kenn ku nekk la nga moom def ca la nga ca war a def bu ko defee yàlla fay la lam la ca bëgg a fay. ndax yàlla dara waru ko. waaye soo deful loolu daal ne man damay xool waa Europe damay xool waa Nangam te en tant que jigéen ñëpp xam nañu ne européens yi ni ñu jàppee woon jigéen bokkul ak ni jigéen ni ñu ko jàppee ci jamono ji surtout l'islam ndax ñoom tubaab yi dañ daan def bu jigéen jëkkëram génnee àddina bu jëkkëram génnee àddina ñu boole ko ak alal ji doon. wala fekkee sax nga am jabar am doom joo xamante ne bii sa jabar ji juru ko soo gaañoo doom jooju day ñëw donn la yow moo xam da lay def jabar moo xam da lay jaay moo xam da lay def lu ko neex dem nañ ba ne ruuxu jigéen bokkul ak ruuxu góor est-ce que góor li muy sentir jigéen dina ko sentir est-ce que liy métti góor dina métti jigéen dem nañ ba ci boo dee xool indien yi dem nañ ba bu seen jabar seen jëkkër gaañoo dañuy jël jabar ji boole ko ak jëkkër ji taal parce que jàppee ko woon dem na naar yi arab yi doon nañ ko def demoon nañ ba ñoom tamit bu ñu demee bu ñu amee doom ji jigéen dañ koy gas suul ndax dañuy bañ mu indi leen ay problème ñu jàppee jigéen noonu doy waa boobu lislaam wàccigul ci ni ñu ko xamee woon yonent sa sallallahu alayhi wasallam boobu ñëwagul waaye bu yonent bi ñëwee yàlla na ko bul defati loolu neen nit ñi buñ defate loolu góor baax na jigéen baax na moo bind góor ak jigéen su ko defee kenn ku nekk am foo xamante ne fii fa nga war yem am foo xamante ne fii doo ko dépassé waaye ñun na xëy na dañ ñuy nax tubaab yi dem nañoo dem a dem ci ñun ba nga xamante ne bii la ñuy wax ñu moom la ñuy déglu sànq rek doon naa ko wax bi ñuy dem Kër Mbay Fall ma ne tubaab yi dem nañ ba ci organisation yi nga xamante ne yu diine la bu ñu ñi nga xam ne ñoom xam-xamu organisation lañ xam te nekkul diine ñooñu ñooy organiser léegi nit ñi di la wax nii ngay toogee fii ngay def kii moo war a njëkk a wax kii moo war a mujj wax léeg-léeg sax ñu dem ba ñu war a wax ñu féetal leen ginnaaw ñun ñu topp seet ginnaaw loolu aussi amul importance boo amee sa jëkkër da koy teg fi nga xam ne fi nga ko war a teg ndax nag nit ki lu muy def na ko war a xam boo amee sa borom kër te xamoo ni ngay jaamoo yàlla ci moom moom it xamul ni ngay jaamoo yàlla ci moom da ngeen di sëy ba génn àddina yàlla dinaa waxati ci affaire bi waaye da ngeen di sëy ba àllaaxira ma a safara waaye du bu ko defee ngeen sëy ba génn àddina du ngeen dugg aljanna xam nga loolu baaxul ñàkk xam nag ni ngay sëyee moo ko waral sànq ji bëccëg ñi ngi doon laajte naan kan moo xam ñeent yi nga xam ne mooy ponki sëy ki nga xam ne xamul koo ngi sëy kenn waru koo may sëy ki xam ne xamul lan mooy àq jabar kenn waru koo may jabar waaye jabar ji nga xam ne xamul àq jëkkër kenn waru koo may ndax xutba yi ñuy def ci jàkka yi dañuy dajale góor ñi rek ñoo fay nekk daal di wax may nañ diw diw buñ paree xutba ci air bi rek xutba bi daanaka dañ koy wax arab duñ ko tekki kenn du ko xam buñ ci paree tasaaroo bu ñuy def xutba bi sax na góor gaa nga ci yeneen jigéen jaa nga ca wala ma nga wala yu mel ni yooyu su ko defee loolu day tax daanaka duñ mën a sëy comme ni ñu war a sëyee te da ngay déglu télé bi ñu lay wax naan la yow doo fa am objet góor yi loxo ñaari loxo ñooy takk sër ñaari loxo ñooy takk tubéy lànk naa maa bañ kan ngay wax lànk naa maa bañ kan moo taxaw gum fii senegal ku dul président bi ma la waxoon ne góor yu jigéen ñoo tolloo léegi kon xam nga kiy wax loolu da koy wax parce que xëy na yàlla lay waxat lànk naa bañ naa ndax yàlla moo ko wax moo ni jigéen ñi góor ñi ñoo leen xel góor ñi ñoo leen ëpp doole doon naa wax léegi ne benn match de football wala basket wala bu mu mën a doon rek amul fu ñu boole góor ak jigéen góor ñi nekk fi benn équipe góor ñi ne jigéen ñi nekk fi benn équipe bu ñu ko defee xam nga ne jigéen ñi duñu gis bal bi tey bu ñu la dóoree benn bal nga amortir ba ci sa dënn bi da xam ne góor ak jigéen bokkuñ dënn yooyu yëpp duñu ko wax ba pare da ngay jël congé maternel toog ñeenti weer wala juróom-ñeenti weer. góor bi du ko tok nga dañu tolo bu dépense jotee nga ne ko jox ma ñu dañu tolo tolloo yoy yooyu yëpp da nga koy xam way lo ci wax way comme ñu ngi lay jéem a rek nga ne grawul na def li parce que moma arrangé arrangé wu la sax yow en tant que nit yalla bindé la nga nek ko xamné da nga féminé léegi nak yoy buñ ci dé bay xal di def waxtaan yu mel ni xëy na danañ jël yaakar na ni ñi fi nek ku fi ñibi ëlëk di nga fi jëlé lo xamné di nga xamné jarna nga dem gàmmu ji ëllëg wala jarut nga dem fa bu dee de waxoon naa ko léegi bu dee tëdd rek ci lal yi bon seen lal yi gën a nooy lal yi fii bu dee lekk rek la lekk yi ñuy lekk ci feneen moo gën a neex ji ñu lekk fii tey sax nag lekk yi fii nii comme nii mu demee nii ci tey ci samedi beeg yooyu xam naa boo matul balaa amaat xam naa gàmmu day dellu si waat rek su ko defee xam nañ ne kon bëriwul njëriñ buñ fi jëleewul dara amuñ fi ñaan amuñ fi yool amuñu fi lenn nga xamante ne bii wax nañ ko fii ci waxtaan wax la nan ngay amee jëkkër nan ngay amee jabar nan ngay yaree sa doom loolu bu fekkee ne yu mel yooyu doo ko xamee ci ay gàmmo yi nga dem ay ak màggal yi jërul di dem dem dong toog di nelaw dugg ci néeg am na ñoo xam ne bu ñuy yëkkee ci gàmmo yi li njëkk a def mooy xoolal bu noo ñu tëdd di nelaw di yeewu di tëdd di nelaw ba dem jot ñu takk seen saak dem loolu du gàmm du màggal am na également ñoo xam ne dañuy toog ci kaw lal yi exagéré bu baax a baax a baax bu ñu indi ay añ wala ñu indi ay reer ñu teg ko ci kaw lalu nit ki ñu fekk si du leen wax dara parce que dafa dul xam dara waaye man bu ma ko gisoon fenn dinaa ko weddi weddi boo xam ne day métti lool ndax kul ci fulla bokkul ci fayda yow mi koy def kala koy seetaanal également jaaduwul ci moom kenn du dem si sa kër di lekk ci sa kaw kenn du dem kon ci kër jaamu di lek ci xol yooyu nonu ay mbir la yo xamne bokul ci magal waye bokul ci tamit ci gamu ñu war koo xam bu baaxa baax li nga dul def sa kër bu ko def mukk mukk mukk ci kër jaamu bu fekke ne jaamu bi dala rus ak loko ko mag-mag sëñ bi wax na ko legi ci conférence bi sa yaay ak sa papa bu fekke ne ñi ngi lay bëgg def lo loo yalla ne ko na nga lan wax na lim wax lepp alquran la ak hadith la façon waxin la ñu ci jangal ñu bari nag parce que oustaz yu bare bare bari bu ñu wax dañ lay bëgg rey lak rek dañ lay lacc arab di lacc arab pour bëgg xam nañu ñu tacc na ndanam ndaanam la ñom nangam li mu fi teunk ni bu fekkon da ko doon wax ay wax hadisi wax li nga xamantene moy waxi mag kon ba legi si yex na fi mu yegg te dégg go li nga dégg donc lolu méthode la bo xamantene aussi bu am importance la bo xamne jar na roy hadisi boko waxe ci arab wax ko ci wolof yaa ngi jël tam waye boko waxe wolof ni bu benn waaye ñewé na la man gëwmu lolu nga ne ko hadis bi la yalla wax wala lii ci wax loolu rek moo ko jar waaye ñun arabisants yi dañoo xaw a feebar tuuti ndax dañuy wax ne boo làkkul dañ naan kii aayul parce que làkkul yow li ñuy làkk xamoo ci dara bu juumee xamoo ko bu jubalee xamoo ko doo déglu langue bi mu la wax yàlla nee na danaa làkk nag parce que nee na yàlla nee na wa maa arsalnaa min rasulin la bi lisaani qawmi képp ku ma yónni ci ak nit langue ba nga xamante ne bi moom la ñuy xam langue boobu ci nga war a wax ndax ci la ngay wax ak ñoom donc dafa jar ñu koy bàyyi xel bu baax gars yi dañuy dem discours assemblée wala ñu dem fenn làkk lay français doo xam gaa yi yéen bu ñu taxawee fii làkk lay arab doo xam yow xaw ma kañ ngay xam ak kañ ngay avancé loolu jar na bàyyi xel bu baax. may dil si tuuti rek avant may jox oustaz gis nga yàlla bu ne boole naa góor ak jigéen pour ñuy am askan la askan woowu ba xase ba ñëw ci sa loxo yi yow mi nga xam ne yaa fàkk ku am jëkkër. wala yaa sàkkoo am jabar gis nga bu ñëwee ba ci sa loxo yi yow as askan woo bu ñëwee sa loxo muy doom yooyu da nga leen war a yar soo leen yarul bu àllaaxiraa waxoon naa la ko da ngay fay liggéey ba yegg si xale bi nangu ko lay doon waaye xale bi su màggee nga yar ko ak nga bañ koo yar war na laa delloo njukkal bu demee ba am fukki at ak ñett rek ci dëkk yu tàng yi fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar ci dëkk yu sedd yi su ko defee moom bu fekkee ne yow jàngaloo ko woon nan lay toppee ay waajuram moom da ko war a dem jàngi feneen loolu lu tax rek mu daal di toog du la di la di la lor fu yàlla tuddee topp yàlla toftal na ca ginnaaw def lu rafet ci say waajur sëñ bi wax na ko léegi waaye bu fekkee ne xamuloo ko xëy na doo ko jéem a def da lay na nag da gis koo xam ne day lijjanti di lijjanti di lijjanti ko muy dem ba sonn ñëw jiñ ko yaayam jiñ ko papaam xëy na sax nag yaayam ak papaam ña ca waaye nag amuloo waa bi wax sa yaay sa papa wër naa ba sonn aw ma xëy na nangam xëy na nangam am nañ benn sàcc bu nekk ci waaw bu ñëpp xam du ma tudd turam danañ dafa ñëw benn bés ne yaay waaye yaay loo def paa parce que man dañ may jàpp sàcc rek fu mu toll maa ngi sàcc ñu may jàpp nag il faut nga wax ma lan nga def paa xam nga yooyu moom xëy na dafa dof wala waaye kenn warut wax sa yaay loolu bien que sax xëy na yaayam liggéeyul lu tax mu normal <coughs> waaye yow bul wax ne sama yaay liggéeyatuloon sama papa ba tax na man damay dikk di ko wax dede do ko wax man la yoral nak ak parce que dañ lay wax na nga tanal sa dom yaay jo xamne kenn du mën jaar ci mom xass ko waye yori na nga tanal sa dom bàyyi jo xamne kenn du mën jaar ci mom xass ko kon kenn ku nek da nga wara tan waye yow so magge ba am fukki atak net ba nga xamanteni bi legi da nga rajo bi danañ kërti kërti ba mu yàgg léegi ne moom mooy bu fekkee ne yaa koy mi koy réglé nga réglé ko normalement wala ñu réglé wala kii nag sàngone yi ana sàngone am maçon la waaw su ko defee <coughs> ñu bàyyi ci loolu suñuy xel bu baax il faut ñu yar xale yi ndax yéen ñii fi ñëw toog nii ragal naa ne yar nañ leen bu baax fii kenn neexalu leen bi fi ñu toog tàng na lool xam nga ne wanteloo yi ëpp ñu su ko defee ngeen toog yëgu leen ko kon xëy na am na yéen tamit fi ñu leen teg yar leen ba ngeen màgg ñi ci am doom ñu yar seeni doom comme ni leen yare ñi ko amul bu ëllëgee bu ñu amee yàlla leen yàlla mooy ñu yar ñoom ci seeni doom loolu nag mooy tax muy baax ñu ko deful dañuy dema dema dem ba Sénégal day yàqu Zaïre amoon na fi réew mu ñuy wax Zaïre yàqu na am na fi réew mu ñu doon wax Libre yàqu am na fi réew muñ doon wooyee Yemen yàqu na Sénégal tuuti mu yàqu bi problème amee ca Casamance waaye xëy na ñaari mag ñe ñenn ñi dialogue yi ñu def yu mel ni yooyu tax na xëy na mu tane ab yaram ngi ci Sénégal waaye nañ leen ko jéem a yoot la fi mag ñi bay woon laay dégg ñuy wax sëñ baa ngi tëdd Touba sëñ baa ngi tëdd tëdd euh, Tiwaawan lu bon du fi am yonent bi tëdd na fee lu bon am fa de yonent bi tëdd na ci jàkkaam di ñu rend fa ali rend fa usman rend fa Omar bu ko defé lolu liñ fi tëdd baxna waye nak ñun ñuy fexé fexé ba buñ mënta yegg fañ tegi fañ neegi ñu tek seen tank fiñ ñu ko tegoon ñoom loolu dana tax yu bon yi ñuy xalat du fi yegg ci barki dem démb dégg naa ñu la japp nañ fi ci pir gi pir gi nga xamné c'est à 10 km de Tivaouane japp nañ fi ay nit ño xamné dañu jël ay ngannaay diko rawalé pour yobbu ko Mauritanie pour affaire jihadisme léegi naa am na ci ñoo xamante ne bii sax nekkoon nañ ci armée wala ñoo xamante ne bii ay takk der la ñu woon loolu noonu ñàkk a yar sa waa kër moo ko waral jihadisme bii ñu baree bare ngi ci fii ci dëkk yi fii ñu toog nii am na ci koo xam ne ab taalibeem bokkoon na ci ba dem na Nigéria ba rey nañ ko fa bu yàgg am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fii toog am na ci ñoo xamante ne bii bokkoon nañ ci riir nañ xamuñu rey nañ leen wala rey leen waaye disparaître nañ yooyu nag baaxul ñooñu seen yaay ngi fi seen xol bi métti ki ñu rey doomam xorom dina métti waaye ki doomam réer ko rey xamuñu rey ñu ko kooku it mi ngi ci problème donc yaral sa doom ba nga xam ne dugg ci mel ni yooyu diine ji yàlla moo koy téyel boppam mu waxee ne leer na kum neex nga gëm kum neex nga weddi yàgg na boo xamul nag da nga yaakaar ne da ngaa war a jël sa jaas yi foo fekk ab tubaab dagg boor bi foo fekk ab tubaab explosé benn ceinture deewaale ci yaa ngi rey sa bopp da ngay xaru safara nga jëm ñuy def noonu nañ ko xam bu baax kenn ku nekk bay sa waar ci côté boobu yaral sa doom fexé ba nga xamante ne bi du ba bëgg bénn dëkk bi ba nga xamné buñ ko wanee xaaliss rek mu bëgg dugg ci nga xamné ne ci dugg loolu bokk na ci yar sa ay doom ba nga xamante ne bi ëlëk fitna du ñëw parce que fitna du taal boppam nii da koy taal te ay loxol lañ koy taalee bo yaree sa doom nak dina baña def yu mel ni yooyu sa borom kay nga diko bañu bañ diko tital ba diko duggal ci ay yo xamanteni jaadul amna ño xamanteni ñi mu abadan parce que def nañ leen no xamne dañuy mën di am ay gel rek à n'en plus finir du ñu takk mukk mukk parce que boo takkee boo ñëwee di nga dee am na sax ku ma xam ci fan yi yàlla def na may nañ ko soxna waaye ñu mu a dem waaw toog rek la def moom da